خيل لا لا لا خيل لا لا لا لا خيل لا لا خيل لا la la la la Tijaan yéen nga ñuy aane képp ku ci gën ci Baay Bara Ahmad na dox di laaj dañ la tere di la solole gaay Tijaane baraamakarun waraun animul sumaa animul mujjal faydu Tijaan yéen nga ñuy aane mu dul leen lii ma leen tere kon da ngeen fab dinaa bu leen teel bu leen juyoo gaay Tijaan sax ci jànga julli tey wirdo bu li fàtte dara arfi jule jàll ñoo em ga yi tijaani ana baawul waraawul alifu subaani mun mo jël faylu tijaan yel inaani maa waru maa waru cay maa waru nday du ngeen seet dundam ga lépp li fil mooy seexu tijaani ana baawul waraawul alifu subaani mun mo jël faylu sax ci jànge juli baraama ci njëlbeen moo doon abil anbiyaa ci mujj mooy abil awliyaa yi tijaane baraama baawun waraawun alifun sumaani mun mu jël faylu tijaan waa fase ngeeg toog di seentoo ay numaan la ko lool baraama jël faylu digg joo alu soonaane Tijaan a ñuy naane. Omar santal yàlla tey sant Baye Asakda Mawla Lalla moo ñu jëlal ak Seexu Tijaane. Baraama baawul baraawul alifu sumaani mun ma jël faydu Tijaan yàlla ñuy demee moo may tey faydu Tijaan yàlla ñuy barru la moom lay baaxale bépp jaam rax raxmaanu la mooy li jàll ti ñaane baaxul waraawul alimul subaani mun mu jël faylu ti jaan ñi naane am nga adila moom lay jubale bépp jaam liif ka allahu la mooy li ces bu ti ñaane baaxul waraawul alimul subaani mun mu jël faylu ti jaan ñi naane lii bëgg jëkk nga adula jaali المسلم قبلة من أن ليل تجاني حرام الأول والأول ألف سبع من مجل فيل تجاني وما تجم داني جسل لك نسيت تلقون كن قمني باي مو يرموت تجاني حرام الأول والأول ألف سبع من مجل فيل تجاني شيخ تجان بارو الأنوار قد ملولي قد ملقمي tijaani xaraam waraawun alifun sumaami mun mujjal faylu tijaani bakkal ma bad ama yow yàlla ñoo ngi lay ñaan ci barke baaxu baraam nga man ñu baagu ñee bañ dañ dañee taane ama baaxul walaawul alifun suma aamimun mu jël faydu tiijaan ñe dañuy taane ñun ñoo ngi tàllal di ñaan ci barke aawu baraam idaayatal waqiila ñe sa dokoon taane ama baaxul walaawul alifun suma aamimun mu jël faydu tiijaan ñe dañuy taane musal ñi ñaan barke Tijaane baaba baawul walaawul alifun subhaan bi mun mu jël faylu Tijaan yëngaane ci li bu baat ama lay sa ko nga tappe ñey baay yow yal ni ngeen di xaar ci baa ko Tijaane haraama baawul walaawul alifun subhaan bi mun mu jël faylu Tijaan yëngaane julli ci yonent jële ko xam ne fay way di way julli asal moo amaloon gaa yi Tijaane jël faylu tiijaan yéen ñi naane baleen na nga ñi saawaay baleen di yéen ñi saawaay ci kaasu sa kula naan min bari tiijaane baraama daawul walaawul aliful sama mi mun mu jël faylu tiijaan yéen ñi naane koosi koosun la ay kaas la ñi naane leer foofu la faylu bonal waay mee gaay tiijaan تفسير براءة براءة باون وراون ألف الصبا ألف المجل خير تجاري لنا إمام شيخ ñoo lay ñaanal ci baaxu baraam fondu gu dëgg wér gi yaram gaay tijaane barama baawun waawun alifun sama alimun mu jël fayda tijaane tijaane amina amina yéen gaañ wax leen amir yàlla yàlla may luy doy barka amina lu tiijaan yëngal ñuy naane war na la kuy jàng sama woo wi mbaalee mi ajoom ci barke barhama barke Seexu Tiijaane warlu la kuy déglu sama woy wi boo nee mi aajoom ci barke barhama barke Seexu Tiijaane harama baawun walaawun alifun sumaha mi mun ma jël faydu Tiijaane sant naa bar yëral ci may tuddalee gaa yi tijaane alawun walawun alifun subaani mun mu jël faylu la jox ñu lu jeex barke tijaane ci Seex Tijaane Sëriñ Ibra Faal moom ma topp ci daaw baay Sëriñ Bay mu baax mi moo naan jox ñu jël faylu tiijaan yéen a yéen aane balaa ma nges moo du xutbu kaasa man kaasa maa géej yeneen taba yaa fay jàlle war gaale balaa ma daawul waraawul alimul suma alimul mu jël faylu tiijaan yéen a yéen aane balaa ma nges moo di docteur mi ne fe seriyaan daf leen di docteur bay nar maa di yàlla balaa ma daawul waraawul alimul suma alimul mu jël faylu tiijaan yéen a yéen aane maa di yàlla ak maa سير برام أنا المباع الوراء العليم وسمها من مجل فيتي جاني جندل بدأ جندل جاسي بدأ قبر كنج بو جور الفنا ولنجو سير برام أنا المباع الوراء العليم وسمها من مجل فيتي جاني أبقى غرابي على اللقاء العبر عزمي على اللقاء أفراس من زلان المغلات ما صلاني على الحبيب سيد الكيان فر البدور فر البؤور فيل الفيود والقمودان البيود والخلب نادي المصلات ما صلى من حرم الابتيار شمس سماسي نصر رؤوس تاج العروس سهر مدار sant ñu Tijaan مكتوم على الصلاه ما صلى على الحبيب سيد الكيان عبد الاله قليل الله يا حبيب الله مكتوم على الصلاه ما صلى على الحبيب سيد الكيان الى سدوري ايات الاخر على المعاني الدور آيات العاقل معنى المعاني المصلاة ما صلاني على الحبيب سيد الكيان هم القروم هم الفهوم هم القرآن نهر سناني المصلاة ما صلاني على الحبيب سيد الكيان

الخلق الألمان صلاتي ما صلاني على الحبيب سيد الكيان أنت المنادي على ملابي لبيت جارا دون امتحان صلاتي ما صلاني على الحبيب سيد الكيان بل أنت نادي ثم الملابي لسرجبت بلا على الحبيب سيد الكيان حسن مريد يريد ريا يوما وليلا أبدي محب يحب صدقا فأعطى سلقا man maqaali